ñoŋal secteuru artisanat bi naka noonu it dooleel capacité ñi di artisan yi loolee di fu chambre des métiers bu njaareem ginnaaw ci lëkkaloom ak agence turque bi di TICA indi jumtuwaay yu am solo ngir gunge artisan yi nekk ci dendu bawal Salih Cholak mooy coordonnateur agence turque bi nekk ci Sénégal. on est la la chambre tey dañu ñëw fii ci chambre des métier bu njaareem tey nag euh, dañu décider ne dañu def benn projet boo xamante ni ñun ñoo koy seq ñu teg benn classe théorie. bi ak benn atelier boo xamante ne nii pour euh, tàggat ndaw ñi la ak ñii di artisan yi indi nañ leen nag équipement yi nga xamante ni moom moo ci war a dem ñuy defaree ay sac ay dàll ay yére lépp loo xamante ne nii daal euh, dina yitteel wàllum artisanat li ñu xayma nag ci xaalis moo di def nañ ci quarante mille euros. pour ce projet. mu di partenariat bu ñu takk dox ci diggante TICA ak chambre des métiers bu Njaareem ginnaaw ci kàdduk ci président bi lee di ci ay ñoñam ñu gën a jëmmal taxawaay ngir yëkkati ponk koom-koom giile. machine yi vraiment cher na trop dem na presque ay ay par exemple boo koy seet def na ci ay cinq de plus yoo xamante ci xaalis chambre de métier la. loolu war nañ koo xamal ñi nga xamante ay artisans lañ aussi tamit ñu nekk ci ñu nekk fii xam nañ chambre de métier it bankul ay loxoom rek. nit di ko dimbale te defuñu dara dugal seen loxo ci koom-koomu gox bi naka noonu it ci réew mi loolee di xememteefu équipe bi yees bi nekk chambre des métiers bu jur Diourbel ginnaaw ba ñu takkoo taxaw ngir gunge ñi di artisan yi yeewoo ci diwaan bi lii